الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا الى سبيل الحق واجتبانا احمده سبحانه واشكره ومن مساوي عملي استغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى وبعد اني باليقين اشهد شهاده الاخلاص ان لا يعبد بالحق مالوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي
جزاك الله خيرا حسبك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد noo ngi sant sunu boroom tabaraka wa taala ci delsiwaat insha allah ànd ak cheikh xaafis ibnu ahmad alxakami ci manzuumaam bi nga xam ne dañ ko war a tàmbali tey gannaaw boo xamee ne ci suñ jotaay bu njëkk bi weesu waxtaane nañ lu néew ci ak dundam kon lii la wax ci téere bi nga xam ne moom la tudde sullamul wusul mu ne bismillahi arrahmani irrahim abda'u bismillahi mustaina raad bihi mudabbiran muina xam ngeen ne way wii nga xam ne moom la ñu tudde wayu rajaz way ci arab dafa am lu ñu tudde ay baxru ñu naan ko ci wolof ay baaru baaru xam naa ci baxru lañ ko jële wenn wu ci ne dafa am aw daajiinam woo xam ne lu ca fell rek wax ja day yàqu loolu nag ci li xaw a jafeel way ci arab ci la bokk su fellee rek day mel ne loo doon peese ba ñaari balance yi tolloo nga coppati dara ci benn bi boo ko defee day daal di jeng way wii ñu tudde rajas nag lu bari ci téere yi nga xam ne téere yi njàngale la way wii di rajas moom lañ tànn li tax ñu di ko tànn moo di rajas mooy bi gën a yomb ci way yi ndax dafa woyof te yi ci dagan itam dafa bari yi ci dagan dafa bari moo tax lenn ci waykat yi ximaaru shuara lañ ko tudde dañu wax ne rajas dafa mel ne mooy mbaamu waykat yi suñ jógee rek moom la ñuy war ndax moo ci gën a woyof boobu mooy benn beneen bi ci des moo di moo gën a yomb mokkal te woyu jàngale ab xam-xam suñ ko dee jël di ko dugal ci ay way pour nit ñi mën koo gaaw a mokkal loolu lañ ci jublu ndax li nga xas mokkal mu tënku ci ay way nga mokkal ko saa boo bëggee delloo si maanaam moomu boo tariwul way way it da nga teewlu maanaam it te loolu lañ ci jublu mooy li ci am solo bi mu tàmbalee ci turu yàlla teewut mu tàmbalee waat ci loolu nag ci biir way bi ndax bi mu ne bismillahi rahmaani rahim amaana loolu doyoon na waaye yemut foofa mu ne abda'u bismillahi bu dee bismillahi rahmaani rahim boroom xam-xam yi dañuy wax ne bismi li ñu tudde jaar ak majróor la maanaam baa bu duggee ci aw tur dafay am leneen loo xam ne ca la aju ndax bismillahi rek boo ko firoon mooy ci turu yàlla waaw ci turu yàlla loo bëgg a wax mu ne kon lañ fa nëbbu mooy ci turu yàlla laay tàmbalee wala maa ngi tàmbalee ci turu yàlla wala nga ne sama tàmbali ci turu yàlla la nekk kon daal la fa nëbbu mën naa nekk aw tur mën naa nekk jëf li ngeen di tudde verbe mën na koo doon waaye nag werante yooye cay am moom mu firi moom lam ci jublu mu ne abdaw kon moom verbe la jëfandikoo abdaw maa ngi tàmbalee wala danaa tàmbalee maanaam li ñu tudde fi'lu mudaari ci arab dafay làmboo li teew ak li jublu si bu fekkee ne maa ngi tàmbalee la ci jublu kon fii ma toll nii maa ngi tàmbalee turu yàlla ci li may def su fekkee danaa ko def nag mooy ci kanam itam yi ma fas yéene def yépp itam noonu rek laa koy defe moo tax kon firee ko danaa tàmbalee samay jëf ci turu yàlla mooy làmboo li teew léegi ak li nga xam ne mooy ñëw ëllëg loolu mooy li gën a mat mu ne abda'u danaa tàmbalee bismillaahi ci turu yàlla li muy tàmbali kon mooy lii muy woy muy woy wii muy woy ci pas-pas fas ko yéene dajale nit ñi mën koo jëriñoo mustaina di ko aji dimbandikoo maanaam may kuy dimbandikoo sunu borom tabaraka wa taala xam ngeen ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na abdullahi ibnu abbas ci xadiisu muslim ne ko ida saalta fasalillah wa ida staanta fastain billah sooy ñaan ñaanal yàlla sooy dimbandiku dimbandikul ci yàlla kon moo tax boroom way wi mu ne mustaina may dimbandikoo ci yàlla boroom bi tabaraka wa taala wax na ci alquran iyaaka nacbudu wa iyaaka nastain yow doo nga la ñuy jaamu waaye yow doo nga la ñuy dimbandikoo kon jullit bi li muy def ñaari mbir a ko séq foofu mooy war na ko tàmbalee ci turu yàlla ñu bismillah la muy defit lu mu jàpp-jàpp ne lu yomb la wala lu jafe la war naa yëg ni ka muy dimbandikoo pour mën a sottal li muy def moo di sunu borom tabaraka wa taala kon mustaina raadin bihi raadin di aji gërëmloo foofu nag am na lum fi nëbb yow mi xam dara ci arab mooy kooku xabar la boo xam ne mubtada mi dañ koo xasaf maanaam la doon wax ji mooy ana raadin bihi maanaam man ku gërëmloo yàlla la ku gërëmloo yàlla laa mu dindi anaaja nag bàyyi fa raadin ji waaye teewul maanaam a nekk fa kon man ku gërëmloo yàlla laa bihi jooju kon tontu na ñaari baat yépp maanaam mustainan bihi raadin bihi maanaam moom laay dimbanikoo ku ko gërëmloo laa itam gërëmloo ko mooy lépp loo xam ne jóge na ci moom rek bu dee lu ñuy digle nangu naa koo jëf bu dee lu ñuy tere nangu naa koo bàyyi bu dee dogal nangu naa koo muñ loolu mooy gërëmloo yàlla mu dabbiran mu ne mu nekk nag di aji baat bi mu gën a jege ci wolof mooy settantal waaye nag gën naa xóot settantal tadbiir moo gën a settantal borom bi tabaraka wa taala lépp lu muy dogal lu nekk mu nar a am am na fu mu ko tër moom sun borom tabaraka wa taala ba bind ko ba teg ko tëriin woowee am xikma ak jubluwaay boo xam ne moo tax mu def ko jëf jooju yépp nag soo ko boolee tadbiir lay tudd maanaam wolof settantal rek la ko mën a wax waaye ma ne gën naa xóot settantal moo tax dafa ne yudabbiru al amra min alsamaai ila al ard summa yaaruju ilayhi fi yawmin kaana miqdaaruhu alfa sanatin mimma taudduun maanaam mbir yi ma ngi koy settantale ca asamaan door ko wàcce fii fi suuf muina te mooy aji dimbalee ji maanaam borom bi tabaraka wa taala kon yeyoo na lu waaye di def tàmbalee ko ci turam ndax biir yi am yépp moo koy settantal tër ko ci tër yi nam wa ko neex wàccee ko nam ko neexe mu dëppoo ak xikma ñaareel bi it kuñ dimbali ku nekk moom moo la dimbali kon looloo tax ñu di ko dimbandikoo kon loolu mooy gàttal bayit wu jëkk woowu ñaareelu bayit bi mu ne walhamdulillahi kama hadaana ila sabili alxaqi wajtabaana walhamdu ak cant lillaahi ñeel na yàlla kama hadaana sooy boo rek nga firee ko ci limunu gindi ak cant ñeel na yàlla ci limunu gindi ak cant ñeel na sunu borom tabaraka wa taala ci gindi gi nga xam ne moom la ñu gindi tabaraka wa taala cant googu nag cant gu lab la goo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu muy yem kama hadaana nag baatu kama bi mu jëfandikoo boo ko doon firi rek da nga naan ni mu nu gindee waaye fekk na kama léeg-léeg dafay nekk ci maanaam sabab maanaam sababu gindi gi mënu gindi noo nga ci sant cant goo xam ne tàmbaliwul fenn yëmut fenn comme ni mu ko waxee borom bi tabaraka wa taala ne fadkuru llaha inda almashari alxarami wadkuruhu kama hadaakum min qablihi wa in wa in kuntum min qablihi la min addalin wadkuruhu kama hadaakum wa in kuntum min qablihi la min addalin kon loolu la fi delloo maanaam ci sababus gindi gim leen gindi te fekk da ngeen a réeroon loolu na ngeen ko ci fàttaliku bu baax a baax kon ak cant ñeel na sunu borom tabaraka wa taala ci gindi gi mënu gindi ila sabilil xaq jëmenu nag ci yoonu dëgg gindiku moom ci yoonu dëgg rek lay mën a jëm yoonu dëgg nag mooy yoonu imaan yoonu gëm yàlla mooy yoonu ittibaau sunna topp sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak yoonu sax ca loola loolu mooy sabilul xaq topp daal ndigali alquran ak sunna jël manhaju yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci léppam mu nekk sa manhaj ak sa doxin loolu ku ko am mooy ku gindiku ila sabilil xaq yàlla nu yàlla gindi lu jëm ci sabilul xaq lu am solo la nag mooy tudd siraatul mustaqim moo tax borom bi tabaraka wa taala saa bun jullee jàng suuratul fatiha ñaan googu noo ngi koy ñaanaale ci biir ihdina siraatal mustaqim yàlla nga nu gindi nu jaar ci yoon wi nga xam ne mooy wu jub bi mu teg ci ne wajtabaana mu tànn nu mu tànn nu maanaam tànn gi mënu tànn yayoo na ci ak cant tànn googu nag tànn gu baree baree bari la nit ci boppam bu xalaatee ni ko borom bi tabaraka wa taala terale maanaam boo xoolee mbindeef yi dox ci àll bi nga xam ne dañ leen di jur ñu def yaramu neen di dox noonu borom bi tabaraka wa taala tànn la ba bokkoo ci mala yi def la doomu aadama kooku ak tànn la nga xool ci kaw suuf li fi nekk ci ay yéefar ak niñ baree di dund ci kéefar goo xam ne xamuñu dara dara lu wuute ak daanaka lu ma la xam ci seen wàllu dund li ñu xam daal mooy lekk ak naan ak sëy ak nelaw mu jeex amuñu leneen lu leen fi bàyyi ñooñu bari lool yàlla tànn benn kuréel jële leen ca ñu génn ci kéefar dugg ci biir lislaam mu boole la ca ñooña kon kooku ittibaa la maanaam ak tànn la nga xool ci biir lislaam ci boppam la fa ne ci ay kuréel yoo xam ne seenum ngir mañ topp mooy biddaa ak caaxaan borom bi tabaraka wa taala tànnaat la génne la ca ñooña nga dugg ci ñi ñuy tudde ahlu sunnati wal jamaa amaat yeneen i kuréel yoo xam ne xëy na sax ñu ngay tuddoo sunna waaye ci mooy yàlla la ñuy yandu di ca fanaan téyewuñ seen i jëmm ñu ngay mooy yàlla ci mboolem seen i cër di ko mooy ci seen i làmmiñ borom bi tabaraka wa taala musal la tànn la ba nga mucc ci yooyu yépp def la nga doon ab jullit bu ne xocc di gëstu sunna ci sa pas-pas ak ci sa jaamu yàlla ak ci sa doxiin kon jàpp naa ne loolu yeyoo na ñu sant ko ci cant gu wér a wér a wér moo tax mu ne waj tabaana tam tànn ma kon tànn googi lu rëy la soo jaxasoo ci nit ñi di dox noonu rek nag doo seetlu sax xéewal gu réy gi la sa borom tabaraka wa taala defal ci loolu moo tax mu ne walhamdulillahi cant ga ñeel na yàlla kama hadaana ci gindi gi mu nu gindi ila sabilil xaq maanaam gindi nu lu jëm fan ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu dëgg wajtabaana mu tànn nu ba génne nu ci mboolem kuréel yu réer yi yu nekk ci kéefër wala ñu nekk ci biddaa wala ñu nekk ci mooy yàlla te di ca nuur mu génne nu ci ñooñu ñëpp dugal nu ci ñi jaar ci siraatal mustaqim kon alhamdulilahi rabbil alamin ñetteel bi mu ne ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa min masaawi amali astaghfiruhu ahmaduhu danaa ko sant subhanahu mooy yéem naa sellam ga moom sun borom tabaraka wa taala wa ashkuru danaa ko gërëm itam ñaari baat la yoo xam ne lu bari ci nit ñi dañ koy firi wane ne ñoo bokk muy alhamdu ak ashukru waaye fekk na am nañ ak wuute alhamdu yàlla rek moo ko yeyoo yàlla mooy yooyu ñu ne alhamdu fu ñu ko waxee rek la ca war a tegu mooy lillaahi moo tax ci alquran ba mu jeex foo gis alhamdu lillaahi moo ca tegu alhamdulilahi fatiri samawati wal alhamdulilahi alladi ansala alkitaba ala ansala ala abdihi alkitaba alhamdulilah yu dul jeex alladi xalaqa samawati wal ard wa jaala zulumati wan nuur alhamdulilahi foo ko fekk ci alquran ëpp na fukki yoon waaye fu mu fi ñëw fu ne alhamdulilahi rek moo ciy tegu lu ko waral moo di alhamdu baatam muy cant kiñ koy def moo xam sax defal na la lu baax wala defalu la ko yow waaye moom ci jëmmi boppam da ko yeyoo maanaam dafa dafa nekk dafa am lu ne ci moom loo xam ne dafa yeyoo ñu sant ko ci même que jàpp sax ne defalu ko dara kooku cant sant ko war na ko ndax boo demee la mu ko defal yëgu ko waaye fekk defal na ko dara moo tax ci alquran da ngay gis alhamdulilahi fatiri samawati wal ard mënoon nga ne ah waaw ak bindam asamaan ak suuf man loolu lu tax ma di ko ci sant maanaam jëmm ja yeeyoo bind asamaan ak suuf wàccee nit ñi ñi cay dox doon ay mbindeefam kooko yeeyoo nañu sant ko alhamdulilahi alladi xalaqa samawati wal ard wa jaala zulumati wan nuur kon kooko ci boppam yeeyoo nañu sant ko alhamdulilahi alladi ansala ala abdihi alkitaba walam yajal dafa iwaja kooku ci boppam yeyoo na ko wàcc gi mu wàcc alquran gindi ci nit ñi yeyoo na ci cant kon alhamdu fi ñu koy jëfandikoo dëgg la xol bi ak làmmiñ wi yépp danañ sant xol bi ak làmmiñ wi danañ sant waaye cant goo gi tënkuñu ko ci ndax kooka dalaa defal dara nga daal koy sant ci saa si wala déet loolu nag moo ko wutaleeg sukkur ndax a sukkur moom nit ki da lay defal dara nga sant ko noonu nit mën na laa defal dara kon nga ne ko sukkuran parce que defal na la dara moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne laa yashkuru llah man laa yashkuru nnaas ku dul sant nit ñi kooku du sant yàlla waaye sukkur la jëfandikoo waxul alhamdu de waxul man laa yaxmadu kon sukkuru mawdu am mooy fan mooy nit ki defal na la dara nga sant ko ci loolee mu la defal borom bi tabaraka wa taala defal na la dara nga sant ko ci loolu sukkur la waaye nag jëmmi sukkur ci boppam lan moo koy def xol dana sant sukkur xol dana ko def mooy gërëm làmmiñ dana gërëm jëf ci boppam itam dana gërëm moo tax waykat ba dane afadatkum nnaamaau minni salaasatan yadi wa lisaani wa damir al muhajjaba man day maa ngi leen di sant ci ñetti mbir yadi muy sama loxo kon kooku jëf lay doon wa lisaani ak sama làmmiñ wa damira ak xol ba al muhajjaba ba di muuru maanaam xol ba ca biir maa ngi leen ciy sant di leen sant ci làmmiñ wi di leen sant ci loxo bi maanaam kon ci jëf ji moo tax borom bi tabaraka wa taala i'malu ala daawuda shukra kon shukur muy sant yàlla ci boppam dana doon jëf kon buñ xoolee ñaar yooyu bu ñu leen comparé danañ gis ne alhamdu ci boppam jumtuwaay yiñ koy defee yiñ koy defee moo gën a néew ndax xol la ak làmmiñ waaye loxo bokku ci bu dee sukkur xol la ak làmmiñ ak loxo waaye nag fañ jëm foofa xamdu moo fa gën a yaatu moo di tënkuñu ko ci ndax kooka rafetal na jëme ci yow wala rafetalul jëme ci yow waaye moom ci boppam dafa yeyoo alhamd ñu sant ko ci loolu sukuru nag ka koy def daf laa defal dara nga sante ko loolu nga gërëm ko moo tax li gën mooy alhamdu nga firee ko ak cant waaye a sukuru nga firee ko gërëm gërëm ñaar yooyu yépp nag da koo boole moom fii jox ko boroomam tabaraka wa taala moo tax mu ne ahmaduhu maa ngi koy sant subhanahu wa ashkuruh maa ngi koy gërëm wa min masaawi amali astaghfiruh boo ko doon firi ci firi bu toggaloo da ngay wax ne wa astaghfiruhu maa ngi koy jéggalu it min masaawi amali ci samay jëf yi ñaaw kon daal mu ne borom boobu tabaraka wa taala mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm di ko jéggalu bépp jëf bu ñaaw boo xamee ne jóge na ci moom alhamdulillah mu teg ci ne wa astainuhu ala nayli rida wa astamiddu lutfahu fi ma qada waxoon na ne day mustaina maanaam borom bi tabaraka wa taala mooy ki ñuy dimbale waaye nag feddliwaat na ko fii nee na wa astainuhu danaa ko dimbandikoo wala maa ngi koy dimbandikoo ala nayli rida ci am ngërëmam ndax kat doomu aadama yi ci kaw suuf objectif bi ko fi tax a ñëw li tax mu wàcc fii ci kaw suuf di yëngatu mooy bëgg am ngërëmul boroomam tabaraka wa taala kooku mooy objectif bu mag ba nga xam ne looy bëgg ci diggante bi lu nekk da ngaa bëgg loola àggale la foofa su fekkee jullit nga nag bu xam diineem te it nit ki kum mën a doon bokk na ci yi lay dimbali ngir nga mën a jëf te doo tayeel doo dàcc am lu la tax di jëf waaye di jëf noonu rek te amoo benn objectif amoo loo jëm amoo bit waaye da ngaa gis mbooloo mi rek riir nga riir ànd ak ñoom amoo foo jëm kooku dàcc daf lay yomb maanaam da ngay dem ba mu yàgg nga tàyyeel dellu gannaaw bu lu metti ñëwee sax nga dellu gannaaw parce que xamoo woon lu tax lu tax ñuy jëf moo tax même soldats yi nga xam ne dañu nekk ci àll bi di guerre leçon yi ñu leen di jox ci wàllu moral dañuy fexe ba jàngal leen bañ xam ñoom lu tax ñuy xeex gëmloo leen ko loola tax ñu di ca xeex mooy tax ñu dëgër ci waaye su doon ndigal la rek ñu ne dem leen xeex yi ñu dem di xeex su mbir ñëwee moo xam ne mu diis la dañuy daw bàyyi ko foofu la ñu rawante boo gisee saxaaba ya ridwanullahi alayhim ajmain ñu mën a nekk ñetti téeméer di not junni maanaam xam liñ bëgg moo tax te ñële ñoom dañoo jógoon nag yor seenu doole ak seen rëy rëylu ci kaw nit ñi ñii ñoom jóg di xeex xeex boo xam ne xam nañ ne buñ ci faatoo àjjana lañ jëm buñ ci faatuwut itam gañe ñu daal di gën a dëgër comme objectif bi ci dundu doomu aadama ji ak jubluwaay bi faw mu mu wiise am loo xam ne ca la jëm su loolu amul rek day réer day dem ba mu yàgg duutu xam moom mi lan la bëggoon mën naa dem ba mu yàgg mu dellu gannaaw wala lu metti ñëw mu bàyyi la mu nekkoon wala sax bànneex ñëw mu bàyyi la mu nekkoon dem ci bànneex ba kon nit ki faaw mu am lu mu jublu waaye nag loolee mu jublu muy bit bit bu kawe bi nga xam ne moom la jullit bi yor ci kaw suuf muy bëgg ngërëmul borom bi tabaraka wa taala faaw mu dimbali ko boromam pour mën a àgg ci loola faaw it mu defar yéeneem ba nga xam ne lu muy yëngu lu tuuti tuuti yéene ja ca biir ngërëmul borom bi tabaraka wa taala la ci bëgg su ko defee wa astainuhu ala nayli rida maanaam maa ngi koy dimbali ko ci am ngërëmam wa astamiddu lutfahu fi ma qada wa astamiddu lutfahu fi ma qada astamiddu mooy tëbbliku defe naa ne baat la boo xam ne li ngeen koy jëfandikoo ci seen waxtaan bariwut tëbbliku mooy nit ki jox na la nga bëgg mu dolli la nag dollin lu bari dolliwaat moom la ñuy tudde almadad ci lañ koy jële tànq na benn potum ndox jox la fekk da ngaa mar ngay naan ba mu yàgg nga indi sa paan teg ne ko damaa bëgg nga far du yolal ma beñuwaar bi ba mu fees kooku boobaa kooku tëbbaliku la nee na nag mi ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu tëbbali ko ak ak ak ñeewentam maanaam wayefal daal dogal bi nga xam ne mi ngi koy dogal ci moom xam ngeen ni kenn ku ne am na dogal bu borom bi tabaraka wa taala di dogal ci yow yoo xam ne bu ca lutfu àndul muy ñeewent ak yërmaande sun borom tabaraka wa taala yër dogal boobu mën naa ñëw metti lool moo xam ci feebar la ci yaram moo xam ci sa am am la moo xam ci say bokk yu la jege la xeeti nattu yi ngeen xam bu ci ñëw bu ne bu àndut ak lutf muy yërmaande sun borom ak ñeewantam loola mën naa metti lool moo tax jullit bi buy ñaan borom bi tabaraka wa taala sax ci ay bàkkaaram mu di ko ko raxasal dafay ñaan mu raxasal ko ko raxas yi wu sedd ndax kat léeg-léeg bàkkaar yi nit ñiy def borom bi tabaraka wa taala nam leen koy raxasale raxas yi wu metti lay doon léeg-léeg feebar bu metti lay doon léeg-léeg sukuraat su continue lu yàgg lool lay doon dundul deewut fekk bàkkaar la ñuy raxas loola ci boppam jullit bi ñaan borom bi tabaraka wa taala dogal yu mel noonu mu woyofal ko ko ci li jaadu ci la bokk moo tax même ci duaa ul istiftaax booy julli am na allahuma baacid bayni wa bayna xataayaaya kama baacadta bayna almashriq walmaghrib allahuma baacid bayni bayna xataayaaya kama baacadta bayna almashriq walmaghrib allahuma naqini min xataayaaya bilmaai walthalji walbarad yàlla nag ma raxasal samay ñaawteef muy samay bàkkaar bilmaai raxas goo xam ne day mel ne raxasu ndox wa salji ak boo xam day sedd ba mel ne glace wal barat ak mel ne yuur bi nga xam ne mooy wàccee ci kaw asamaan si buy taw kon kooku raxas seenu bàkkaar wu ànd ak woyof la wuute na ak bàkkaar boo xam ne bu ñu koy raxas dañuy mel ne kuy dagg cër ba kon jullit bi loolu ci li mu war di ñaan ci la bokk moo tax moom mu daal di wax ne wa astamidu lutfahu maa ngi koy ñaan ñaan gu tar ak ñeewantam ak yërmandeem fii ma qadaa ci lépp loo xam ne dogal na ko kon ñeenti bayit yooyu jàll daal fedd la ci bu baax tawxiidam digganteem ak boroomam leeral ne moom li muy def ci tur yàlla la koy tàmbalee ku gërëmloo yàlla la ndax yàlla moo yeyoo ñu gërëm ko moo settantal mbir yépp mooy dimbali ku ñu dimbali moo yeyoo ak cant ndax gindi gim nu gindi lu jëm ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu njub tànn gém nu tànn mi ngi koy sant itam di ko gërëm di ko jéggalu ay bàkkaaram di ko dimmanikoo ci am li nga xam ne mooy ngërëmam di ko ñaan mu wayefal ko bépp dogal boo xam ne teg na ko ci kawam mu daal di ne nag wa baadu gannaaw loolu nag inni bil yaqini ashhadu shahaadata al ixlaasi an laa yubadu kooku boo koy jàng Ismail bul ne ashhad bul ne it yubad maanaam rajas bi nangu na doonte arab ci tajwid wala ci kalam ak arab sax booy waqfu da ngaa war a sukkoon waaye rajas nag léeg-léeg moom da lay yeew doo sañ a jëfandikoo sukkoon faaw nga indi masque ga soo ko indiwut màndaxe mi ma la doon wax léegi day am lu ca sikk moo tax wa baadu inni bil yaqini ashhadu shahaadata al ixlaasi an laa yubadu noonu nga koy jàng inni man day ashhadu maa ngi seede bil yaqini ci kóolute kóolute mooy loo xam ne benn sikki sàkk jegewu ko fenn lan lay seede nee na nag shahaadata al ixlaas yi seede goo xam ne seede sellal la kon daal maa ngi seede seede boo xam ne ñaari mbir a ngi ci benn bi yaqiin la boo xam ne sikk sàkk jegewu ko fenn bi ci des mooy sell na ba mbindeef amu ci lu toll ni tarfatal ayn lépp sun borom tabaraka wa taala ko moom shahaada boobu mooy lan mu ne an laa yubadu bilxaqi maluufun siwa arrahmani man jalla an aybin wa an nuqsaani kon daal dafa bëgg a wax ne wa baadu fa ashhadu an laa ilaha illa allah loolu la bëgg a wax waaye déglu ni mu ko waxee nee na maa ngi seede seede goo xam ne yaqiin la àndal amut sikki sàkka maa ngi seede sekke seede boo xam ne ixlaas la àndal amut bokkaale li ngay seede lu mu mu ne an laa yubadu ne kenn du jaamu bil xaqi ci dëgg maanaam jaamu ga di doon dëgg maluuhun ku ñuy jaamu si war raxmaani ku dul yàlla kenn du jaamu dara maanaam kenn du jaamu kenn wala lenn jaamu ga di doon dëgg lu dul yàlla kooku mooy mooy laa ilaha illa allah kon loolu mooy tolloog ashhadu an laa ilaha illa allah yàlla moom mu ne man mooy ka nga xam ne jàlla màgg na an aybin soree na ak ayib di ko laal fenn wa an nuqsaani wala ak wàññi ko di ko jege fenn kon borom bi tabaraka wa taala moo gën a màgg ayib di ko laal wala wàññiku di ko laal fenn ñaar yooyu ñoo ñooyam fu ayib nekk rek ak wàññikoo nga fa fu ak wàññiku nekk ayib nga fa kon ñoom ñaar ñoo ànd waaye ñaar yépp nag yu dàqu lañ jegewuñ sunu borom tabaraka wa taala fenn kon xaaj bu njëkk boobu ci bayitu juróomeel wala ko mottali maanaam bayitu juróomeel wi ak juróom-benneel bi daal la fa nekk mooy ashhadu an laa ilaha illa allah kon war naa seede ne muhammad it rasulullah mu ne wa anna xayra xalqihi muhammada man jaana bilbayinati walhuda rasuluhu am na yenn nusax yoo xam ne rasulihi moo ca nekk waaye loolu njuumte la rasuluhu la wa ann xayra xalqihi maanaam maa ngi seede itam seede gu mel noonu yi ma wax ann xayra xalqihi nekk kii gën ci bindeefam yi maanaam ki gën ci nit ñi muhammada muhammad man mooy ka nga xam ne jaana dikke nanu wala nga ne andil nanu bil bayinaati ca lay yu leer ya wal huda ak njub ga rasuluhu kooku moo di yonentam kon wa ashhadu anna xayra xalqihi rasulu muhammadan rasuluhu loolu la bëgg a wax wa ashhadu anna xayra xalqihi muhammadan rasuluhu loolu mooy tërin bi kon maa ngi seede ne ki gën ci baatub mbindeef yi la jublu la wax foofu alxalq buñ ko waxee mooy mboolem mbindeef yi da di nag loolu ak jooyoo la ci diggante boroom xam-xam yi gëstu ndax yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo gën ci lépp lu yàlla bind wala moo gën ci doomu aadama yépp ña cay jooyoo ci boroomi xam-xam dëppoo nañ ci ne moo gën ci doomu aadama yépp ndax moom ci boppam wax na ko ana sayidu waladi aadama wala faxr ana sayidu waladi aadama wala faxr mooy ki gën ci doomu aadama yi nee na nag loolu damu taxul mu di ko wax waaye dafa dëppoog dëgg rek te dëgg moom des koy wax nee na mu wax ko moo tax mu ne damu wut mu des nag ndax doomu aadama yi moo ñoo gën ci li yàlla bind lépp wala am na ñu leen gën su fekkoon ne day am nan dalil buy wane ne doomu aadama yi ñoo gën ci li yàlla bind kon kooku dalil la buy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci lu yàlla bind ndax moo gën ci doomu aadama yi waaye nag jafe na lool nu am dalil buy wane ne doomu aadama yi ñoo gën ci lu yàlla bind ndax borom bi tabaraka wa taala dafa ne wa laqad karramna bani aadama teral naa doomu aadama wa xamalnaahum fi lbarri walbaxr ba ne wa faddalnaahum ala kathirin mimman xalaqnaa maanaam yëkkati naa leen ci kaw lu bari ci ñi nga xam ne bind naa leen maanaam ñu bari ci ñi ma bind doomu aadama leen féete kaw ah kon nag ala kasirin la wax kon am na lu néew ñu néew ñoo xam ne doomu aadama féetewu leen kaw ndax kat bindee fi borom bi tabaraka wa taala dafa bari wa maa yaalamu junuuda rabbika illa hu moo xam ñam bind ñu mu doon ñu ko ca gënal nu mu demee moo ko xam kon daal suñ bëggee taxaw ànd ak dalil lu nuy wax mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci nit ñi moo gën ci nit ñi li ñuy won ne mu àllif bi loolu la jubloo wax dafa jëfandikoo baatu xalqihi mooy fi mu wax ne rasuluhu ila jamii il xalqi maanaam yonentam la boo xam ne mi ngi jëm ci ndax ci mboolem mbindeef yi lañ ko yónni wala ci mboolem nit ñi jinne yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yonent la bu jëm ci mboolem bindeef yi yàlla bind yépp wala yonent la bu ñu yónni mu jëm ci nit ñi ak jinne yi nit ñi jinne yi nit ñi jinne yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam doonul ab yonent boo xam ne dañ koo yónni mu jëm ci malaaka yi ci misaal ak yeneen i bindeefi yàlla yi nga xam ne xamuñu leen ñooñu jëmul ci ñoom kon nag baatu xalq bi mu jëfandikoo fii rasulihi ila jamii al xalqi moo nuy feddleel wan na lim jublu ci xayra xalqihi mooy nit ak jinne loolu la ci jublu boo delloo sax moom ci boppam fa muy saraa moom ci boppam téere bi saraa na ko ci téereem bi jox maarijul qabool comme ni ngeen ko xamee aaya ya muy tegtaloo moo la koy wan ndax wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaasi la jëfandikoo foofu mooy wane ne mooy ab yonentam kon bi jëm ci mboolem nit ñi jëfandikoo bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di waxee ne kaana nabiyu yubaasu ila qawmihi xaasatan wa buistu ila nnaasi aamatan ab yonent dañ ko daan yónni rek mu dem ci aw nitam waaye man dañ maa yónni ma jëm ci mboolem doomu aadama yi bàyyiwuñ kenn ba keroog àdduna di tukki ñooñu ñëpp ab yonent la ba jëm ci ñoom kon lim jublu ci alxalq foofu leer na mooy jubluwut bindee fi waaye lim jublu mooy nit ñi su ko defee ñu mën caa yéegal itam jinne yi ndax am nañ dalil buy wane ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam yónni woon nañ ko ci ñoom kon man jaa ana mooy ki nu indil bil bayinaati wal huda moo nu indil lay yu leer ya naññi muy alquran al karim wal huda ak njub ga yonent boobu ila jamii al xalqi bi nuuri maanaam mooy ki nga xam ne nag bi mu ñëw ak leer la indaale walhuda nuur foofu liñ fi jublu mooy alquranul karim walhuda mooy sunna wa diinil xaq mooy lii juddoo ci ñaar yooyu lii juddoo ci alquran ak sunna mooy diinul xaq mooy diini ji nga xam ne mooy diini dëgg ci borom bi tabaraka wa taala tuddee na alquran nuur ci ci ay aaya bokk na ci fa aminu billahi wa rasulihi wa nuuri alladi anzalna wallahu bima taamaluuna xabir gëm leen yàlla akub yonentam ak leer gi ma wàcce kon alquran al karim lañ jublu ci leer gi foofu ci suratul araf am na fu muy waxe alladina yattabicuuna الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ها يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ها واتبعوا النور الذي أنزل معه maanaam ñi nga xam ne gëm nañ ko فالذين آمنوا به ñi ko gëm وعزروه ñi ànd ak moom dëgëral ko di ko dimbali ونصروه ñi dimbali ko dimbali diineem wattabaxu nuur alladi unzila maahu ñi topp nag leer gi nga xam ne dañ ko wàcce mu ànd ak moom ulaayika humul muflixuun ñooñu ñoo texe kon leer gi ñu wàcce mu ànd ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam mooy gan mooy alquranul karim moo tax mu ne bi nuuri wal huda maanaam kon moo indi leer googi moo indi njub ga itam nga xam ne mooy sunna wa diinil xaqi diini ji nga xam ne mooy diini dëgg diine ji nga xam ne judul moom diine neen la mooy lay juddoo ci alquran ak sunna maanaam ku topp alquran topp sunna kon topp nga diinul xaq muy diine ji nga xam ne moo nekk ci mooy diine dëgg ci alquran ak sunna moom ak ak réer mënu ciy juddoo njub rek moo ci mën a juddoo ndax leer kese la njub kese la kon mu teg ci ne salla alayhi rabbuna wa majjada wal aali wa saxbi dawaaman sarmada salla mooy yàll na julli alayhi ci moom rabbuna sunu borom salaatullahi nag buñ ne yàlla yàll na julli ci moom mooy yëkkati ay darajaam tagg ko kaweel ko lépp loo xam ne ci maanaa moomu la dugg rek bu dee salaa bu jógee ci sunu borom tabaraka wa taala jëm si ci kum bind noonu lay tudd maanaam aw tagg lay doon ak yëkkati daraja lay doon ak kaweel maanaa yu mel noonu lay yor mu ne wa majjadaa mooy wa sharrafa yal na yàlla julli ci moom yal na ko yàlla teral wal aali wa saxbi dawaaman sarmada wal aali mooy ñooñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñ yonente bi nag buñ ko waxee mooy képp koo xam ne gëm nga lim nekkoon jaar ca képp ku jaar ku topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci aalu nabi nga bokk kon loolu saxaaba yaa nga ca biir ñi ñu tudde aalul bayt muy bokkam yu jege ba noppi topp ko ñu ngi ci biir mboolem jullit yi mas a juddu te jaar ci siraatul mustaqim itam ci aalu nabi lañ bokk moo tax boo ne sallallahu alayhi wa alihi dugal nga mboolem jullit yi dafa am ñoo xam ne nag dañoo yaakaar ne aalu nabi buñ ko waxee mooy ñi ko jege rek ciw askan te loolu moom mënta wér na ko borom koy woykat ba waxee na ko woykat ba waxee aalu nabiyi humu atbaau millatihi ala shariati min ujmin wa min arabi aalu nabiyi humu atbaau millatihi ñooñ yonent bi mooy ñi topp yoonam bi moo xam ay arab lañ wala duñu ay arab mu teg ca ne law lam yakun aaluhu illa qarabatahu salla almusalli ala taari abi lahabi law lam yakun aaluhu su fekkoon ne ñoñam mooy ñi ko jege rek ci aw askan kon ku julli ci yonent bi kon yóbbaale nga abu lahab boo ne sallallahu alayhi wa alihi parce que abu lahab moo bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo bokk lan ñoo bokk ndey ak bàyyi kon su fekkoon ne ku ko jege ci askan boo ne aalu yonent bi koo ko duggaale ci biir kon da ngay yóbbaale abu lahab kon da ngay yóbbaale Abu Lahab te xam nga ne Abu Lahab kenn du julli ci moom kenn du ko ñaanal itam ndax ma nga sawara ma nga sawara tabbat yada abi lahab wa tabba ma agna sa yasla naaran daata lahab noonu la ko borom bi tabaraka wa taala waxe te loolu ci kéemaani alxuraan yi jamono yu nekk dama lay wax ne loolu ci kéemaani alxuraan yi mat a bàyyi xel ci la bokk alxuraan di wàcc Abu Lahab di dund wax ne kii sawara la jëm maanaam loolu li muy firi mooy ci kéefar lay dee mu gis ko su bëggoon a wane ne yéen li ñu wàcc ci yéen du dëgg bu boobaa day tuub su tuubee dugg ci leen ñu ne kon alxuraan firiku na waaye mënul woon a tuub ci kéefar rek la mën a dund ba faatu kooku mooy wane ne alxuraanul karim moom ci borom bi tabaraka wa taala rek la mën a jóge wal aali kon loolu mooy ñooñ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy képp ku ko gëm jege ñaale yi ci bokk yaa nga ci soxnaam yaa nga ca biir saxaaba yaa nga ca képp ku ko gëm ba kero muy soob sun borom tabaraka wa taala ñu baax di jeex ci kaw suuf képp ku ko gëm rek te topp ko bu boobaa yaa nga ca wa sax bi ak i saxaabaam nag wa sax bu mooy jàmmu saaxib pluriel la benn bi mooy saaxib mooy àndandoo ngeen tudde ay compagnon saxaabi yi nag buñ ko waxee mooy ki nga xam ne daje na ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daje na ak yonent bi gëm lim indi maanaam gëm yàlla gëm yonent bi ba noppi faatu ca loola sart yooyu bu ci yàqu rek duutu doon ab saxaabi dajeeg moom boo gisee ñu jëfandikoo baatub daje te waxuñu gis ndax am na ñoo xam ne bu ñu koy jàngal dañuy wax man raa nabi sallallahu alayhi wasallam ku gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy am na ñu ñu dajeeg moom te gisuñu ko comme silmaxa yi am na ay silmaxa yu doon dund ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne daanaka bu dee gis moom ñoo yow a ca yem waaye nag daje na ñoom moom di wax muy dégg moom it muy wax ñuy dégg ñu gëm ko dund ca loola ba faatu fekk leen ci ñooñu ay saxaaba yi lañ kon képp ku dajeeg yonente bi alayhi salaatu wasalaam gëm ko dund ca loola ba dee fekk la ca kooku moom la ñu tudde ab saxaabi waaye kat su daje woon ak moom gëm ko ba mu yàgg mu tubbi dem ci kéefar kooka du kenn du ko tudde ab saxaabi te ñu mel noonu it am nañ wala yaasu billah bu ñuy wax dajeeg moom nag wala gis koo yu mel noonu mooy ci jamonoom jëm doon dund waaye waxuñu rek ñu jekki ba jëmmi jamono kum neex rek nga ne dugg naa fi roq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dikk na nee na ma lii wax na ma lii nangam nangam loolu kenn kenn taxul ñuy wax loolu moom du yëkkati nit mukk mu doon ab saxaabi mukk ndax ay wax la yoo xam ne ñi koy wax ñaari nit rek la kenn la ci mën a doon koo xam ne lu baax a ko tax a jóg waaye dafa jommi seytaane yi ñëw jommal ko mu génn ne gis naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te gisul dara wala mu nekk li ñuy tudde dajjaal muy nit koo xam ne dafa jóg moom pour yàq diine nit ñi loolu moo ko tax a jóg lu ko neex mu ne mi ngi ak man pour réeral nit ñi ñaar yooyu rek ñoo ci am léeg-léeg nit ki dana baax seytaane ñëw nax ko yàq am xelam jommal ko ne ko may yonent bi jaar ni wax ko yi kenn xamul yu mu doon mu génn yor ko di ko tasaare ci nit ñi ne yonent bi moo ko jox wala mu doon koo xam ne moom ci boppam yoru làmboowul woon lu baax seytaane fexeelu ko waaye moom ci boppam ci soldaari seytaane yi yàq ci la bokk mu génn tasaare ci nit ñi lu ko neex na leen gis naa yonent bi wax na lii def na lii kon ña dund ak moom ñoo tax ñiy wax kon yal na yàlla dolli ci moom ak julli ak tiraanga ak mboolem ñoñam ak i saxaabaam dawaaman faww sarmadan juñ fedd li maanaam dawaaman ak sarmadan ñaari baat yooyu bu ci nekk day firi lu yemut fenn ci kanam kon ñoom ñaar suñ leen boolee bu mujj bi day fedd li day confirmer bi ko jiitu woon kon dawaaman sarmadan loolu lay firi bu baadu kon mu jëfandikoo waat bu baadu gannaaw loolu nag ba mu waxee lu jëm ci fa muy tàmbalee ak sant yàlla ya ko nuru ba mu noppee bu baadu la jëfandikoo woon mu daal di seede ñaari seede yi ci anam gu wér julli ci yonent bi julli ci ay àndandoom ak saxaabaam daal di newaat nag bu baadu kon noppi na ca nag la mu doon jiital mu ne wa baadu hada nazmu fi lusuli liman arada manhaja rasuli mu ne wa baadu gannaaw loolu nag hada nazmu way wii wala qasida gii wala téere bii fi lusuli way wii nga xam ne mi ngi jëm nag ci cosaan yi mi ngi jëm ca reen ya reeni diine xam nga diine lu bari nit ñi liñ siiwee mooy boo nee usul day mel ni usulul fiq ngay wax waaye téere bi jëmut ci loolu kii usulu usulul fiq la maanaam usulul fiq ci boppam lam sukkandiku ba door a mën a doon usul foofa lay waxee kon mooy cosaanul lépp ci diine mooy lu aju ci arkaanul imaan muy gëm sunu borom tabaraka wa taala ak yonentam ak ci malaakaam ak i téeréem akub dogalam yu jëm foofa ak lépp lu aju nag ci gëm suñu borom tabaraka wa taala ak yem yeyoo ci nit ñi muy jaamu ko moom dong gëm ay melokaanam wëlbati ko boole ci gëm yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak lépp loo xam ne lu ànd ak loolu la yooyu cosaan yu mel noonu moo tax ñuy wax nee na téere bii kon ci cosaan yooyu la jëm liman araada ñeel na képp koo xam ne bëgg na manhaja rasul yi yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon yow jullit bi jóg jëm ci di wut ngërëmul sa boroom te nangu koo jaare ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow la bindal téere bi yow la bëgg a jàppale ba loolu yi nga bëgg nga mën ko loolu nag lu am solo la ndax nit ki mën naa bëgg dara am yéene ja lool bëgg a àgg ci ngërëmul suñu boroom tabaraka wa taala waaye jaar ca yoon woo xam ne jëmut foofa kooku lu dox ba yàgg-yàgg du àgg parce que ku jëm ci ab dëkk da ngay jaar ca yoon woowa ngërëmal sun borom tabaraka wa taala yoon wa fa jëm mooy manhajar rasuli comme ni mu ko waxe mooy yoonu yonente bi salallahu alayhi wa sallam manhaju yonente bi salallahu alayhi wa sallam bu ñu ko waxee dafa dafa làmboo diine lépp noo war a gëmee yàlla looy gëm ci moom loo dul gëm noo war a toppee yonente bi loo war a gëm ci yonente bi say jaamu yàlla sax foo koy teg jëmmi fiq bi fu muy jóge kañ ngay jëfe masala kañ ngay bàyyi masala yooyu yëpp manhaju rasul sallallahu alayhi wa sallam moo la koy jàngal mu ne nag saalani iyaahu man laa budda lii min imtisaali amrihi lmumtasali saalani iyaahu ñaan na ma ko man koo xam ne laa budda lii amu awma pexe awma pexe min imtisaali sulihi ci topp ab laajam maanaam lu ma ñaan daal mënuma ko ko bañ a may la bëgg a wax am na ay nusax yoo xam ne amri yii moo fa nekk min imtisaali amrihi lmumtasali ñàkkul ay téere yoo xam ne ci niñ ko moole amri yii moo fa nekk wuutu sulihi waaye ñi xam ne ñaar yépp a wér lu ci nekk wér na kon daal nee na téere bi li tax mu koy bind daa am ku koo ko sant koo xam ne nee na mënuma mooy ndigalam kon ki muy jinj foofu mooy sëriñam bi ñu la waxoon ne la moo ko formé jàngal ko samp ko mu toog di jàngale muy cheikh abdullahi al qaraawi mu doonoon ab wootekat bu mag boo xam ne waxtaanoon nañ la dara ci mbiram ak nam sampe woon ab wooteem ci la weesu kon bi mu demee ba gis ci moom melokaan yu mel noonu yi moo ne ko daal war ngaa defar benn manzooma ndax xool naa ba gis ne say woy baax na te it liñ lay jàngal dégg nga ko defaral benn manzooma boo xam ne dana mën a gàtt te dana mën a leer su ko defee sa moroom yi mën koo jàng mën cee jëriñu loolu ci li boroom xam-xam digganteem ak i taalubeem li mu war a bàyyi xel ci foofu ci la bokk mooy bu gisee ci ñoom koo xam ne borom bi tabaraka wa taala am na lu mu ko baaxe mu soññ ko ca loola encouragé ko ca ndax mu jëm ci kanam yaakaar naa bi mu ko defee doonut lu ñuy réccu ànd ak ne booba du mag lool waaye teewut mansuuma bi ay mag a nga koy jàng di ci jariñu ñoo xam ne ñu sori loolu lañ ci xam-xam di toog di ko jàng lente ci yeneen i jotaay yu bokkut ak sax suñu jotaay bii loolu mi ngi am ci fu bare bari tey ci al aalamul islaami su fekkee na di su fekkoon ne du ndigalul sëriñam boobu ko jàngal moo ko wax loolu pour mu def ko kon lu mel nii tey mën na fee mën na fee ba jafe lool kon mu ne daal saalani iyaahu ñaan na ma ko man koo xam ne laa budda lii aw ma benn pexe min imtisaali sulihi wala min imtisaali amrihi ci topp ab laajam wala topp ndigalam al mumtasali ndigalam la nga xam ne lam yeyoo mooy ñu topp ko al mumtasali mooy la ñuy topp waaye lam ca firi mooy la yeyoo ñu topp ko nee na nag fa qultu ma daal di wax maa ajzi wa maa ishfaaqi muctamidan ala alqadir albaaqi nee na ma daal di wax ne ànd ak sama lot ànd ak it ak sama njàqare maanaam bi may bind loolu yaar yi laa àndal mooy nangu naa ne ku lot laa mooy ndax bariwuma pexe jàpp ma ni itam boroom xam-xam laa te it gone laa ñaareel bi wa ma ishfaaq yi ànd ak sama sama njàqare kon lot ba noppi jàq yaar yooyu laa boole waaye rek lot ak jàq moom su amee it nit ko sukk sukkandikoo ci borom bi tabaraka wa taala mën na koo dëgëral moo tax mu ne mu'tamidan ma sukkandiku nag alal qadiri ca borom kàttan ga albaaqi ka nga xam ne moo fi des itam ba faw mooy suñu borom tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne mooy borom kàttan gi mooy ki nga xam ne itam moo fi des ba faw suñu borom tabaraka wa taala kon daal ma daal di tàmbali nag dugg ci biir loolu daal di wax ànd ak ne ku lot la ànd ak ne ku am njàqare la waaye ma sukkandiku ci yàlla mi am kàttan ma sukkandiku ci yàlla mi nga xam ne moo fi des ba faw moo fekke lépp itam lam wax nag ñëwagul incha allah ci jataay bii di ñëw ci lañ koy xam kon téere bi ca lam wax foofa la tàmbalee dëgg-dëgg waaye lii mooy introduction bi fa xulti ji mu wax waxagul li mu wax lu mu doon kon incha allah ci jataay bii ñëw danañ xam li mu wax fan la ko tàmbalee bi idnillah li jiitu kon mooy mooy muqaddimaam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain su amee lenn ci ay laaj feeg waxtu wi gën a jege incha allah wa fiikum barak xam naa ne xalima gi nuroo na lool yaari këyit la waaye nuru na ne bu ko kenn bindut it xëy na ñaar ñu bokk daara ñoo ko ñoo ko bind ndax xalima gi daa nuroo kenn ki daf ne mi ngi laaj ndax dagan na ci ab jullit muy wéet ak jigéen ngir jàngal ko su fekkee ne moom ab jàmbur la ci jigéen ja jigéen ja di jàmbur ci moom te it ay mukallaf lañ su boobaa loolu du dagan su fekkee lam jublu ci wéet mooy ñi bokk nekk ci béréb boo xam ne ñoom ñaar dong nga fa bokk nekk moo xam ab néeg la moo xam ab kalaas la waaye béréb la boo xam ne bokk nañ wéet fa ñoom ñaar su boobaa loolu du dagan na wut ku leen ñetteel benn ku góor ku toog di jariñu moom it ca xam-xam booba wala yeneen i jigéen wala jeneen jigéen joo xam ne mu ngi bokk toogandoog kooka di di jariñu kon sartu ku góor ki di jàngal ku jigéen ki te doon ab jaambur ci moom mooy sarti bépp jëflante ba dox diggante góor ak jigéen njàngale mi du tax am lu dagan lu daganul woon maanaam buñ wéet jigéen ji it na sol col bi nga xam ne moom la war a sol te buñ génn cadre bi nga xam ne mooy cadre xam-xam bi leen fa indi dugg ci yeneen walay kaf wala yu nuroog yooyu su boobaa loolu du dagan ki ci des daf ne ndax dagan na ci nit ki mu yebal doomam mu dem jàngi français bañ koo yebal mu dem jàngi ci école yi nga xam ne mooy école yi lislaam yi alhamdulilah ñu wattandiku bañ a fekk ay mbir yoo xam ne dañuy jàpp ne lii contraire am mooy lii te fekk loolu du contraire am lu bari ci nit ñi li ñuy tudde mantiq mantiq nag bu ñu ko waxee jubluwuñ xam-xamu mantiq ba nga xam ne mooy yàq diine waaye xel mu mucc ci wàllu xalaat benn jàngalekat daa ñëw ci classe bi di jàngal élèves yi kenn ku nekk lu ne luy safaanam lu ñuul ku la ne woon luy safaanam looy wax dafa daa ñëpp lu weex la ñuy wax lu gudd luy safaanam ah lu gàtt adduna luy safaanam alaxira ba mu yàgg mu ne ko rek xaj luy safaanam ñàkkul xel yu ne ah luy luy luy safaanam waaw dégg nga am na ñu daan muus loolu mooy indi ah la dafa am yoo xam ne amuñu contraire maanaam amut safaan xaj ci boppam amut safaan bu ñu ne loon xaj bu góor mën nga ne bu jigéen waaye nag boo ne moos mooy safaanu xaj yaa ngi jaxas jàngi dugal nit ki ci école bu ñuy tuddee école l'islam ci suñ société bii ak dugal ko ci école bu ñuy tuddee école français li ñuy def mooy dañuy xool maanaam du caa génne làkku làkku arabe wañ fay jàng wala làkku français wañ fay jàng mooy yàq nit ka waaye ñu yëg ne jamono dem na ba nga xam ne jàng ci boppam askanu l'islam ñoo ko gën a aajowoo ñëpp. l'islam jullit yi dañoo demoon ba ci wàllu xam-xam ku bëgg a avancer ci ñoom ngay jàng si tubaab yi dañ daan yebal seeni doom ñu jóge Europe ñëw Andalus fële nga xam ne mooy Espagne tey di fa jàng si di fa toxal si xam-xam di dellu di ko jëfandikoo noonu lañ daan def te booba gëmuñu yàlla waaye xam-xam buñ baaxale seen àdduna moom lañ doon jàng muy mathématique ak lu jëm ci wàllu atteeg luwaak lépp lu ba léegi jeexiti lislaam yi mi ngi ci seen biir yi ñuy jàng yoo xam ne ay ay ay terminologie yu bare bari yoo xam ne amaluñ ko nuñ koy waxe lu dul na ko arab yi doon waxe na lañ koy waxe ba léegi kon jullit yi nekkoon nañ ci place bu kawe ci jàng seen adduna ak seen alaxira ba xam ko ñi dem nag ba ñooña dal ci seen kaw gannaaw buñ jàngee ba xam ba wóolu ne ñoom ñi xam nañ ñi ñëw dal ci seen kaw ak doole rey seeni borom xam-xam lakk seeni téere sàcc seeni bibliothèque yóbbu ko Europe ba léegi téere yu bari ci téere yu médecine ak yu mel noonu ci boo ko amee ci bibliothèque yi nekk Europe fa ngay dem door koo am lu ko waral parce que ñoom ñoo ko sàcc yóbbu ko foofu kon suñ demee ba jëmmi jamono jullit yi di jiima kuus-kuus yi jógaat di taxaw ñaari mbir a leen séq mooy fu ñuy jaar ba seen diine ji ñu mën koo jàng ba xam ko ba mën a doon ay jullit ba mën a doon ay jullit yoo xam ne dañuy dund seen diine ñaareel bi mooy seen àdduna fan lañ war a mën a jaar ba jàng ko ba xam ko ba doon ñoo xam ne duñ doon ñu ñu ñu toskari ñu dellu gannaaw ci kanam xeet yi ci des ci wàllu àdduna kon ñaar yooyu yëpp soxla nañ ko loolu nag firiwut ne benn jullit bu nekk daa war a nekk ingénieur ci nàngam nekk mufti ci nàngam kenn ku ne war koo doon loolu mënta nekk leen soxla mooy ay jullit yoo xam ne boroom xam-xami lislaam lañ yoo xam ne dañoo jàng diine ba xam ko mën a jiite xeet yi ci lu jëm ci wàllu diine waaye ànd ak loolu soxla nañ ñoo xam ne mboolem lu ñuy jàng lu ñuy jàng di ca spécialité wu soxla nañ ñu jàng lu xam loola ba àggal doon ay jullit moo xam ci cadre médecine nga nekk moo xam ci cadre ñu jàng wàllu droit nga nekk moo xam fu mu mën a doon fu ne soxla nañ fa ay jullit yoo xam ne yu jàng ba xam seen diine lañ di ko dund yor maandu tega yor njub ga yor mbaax ga loolu nag suñ ko bëggee ci société yu mel nii faaw ñu gëm ne jullit bi dafa war a jàng war nañoo am ñoo xam ne dañ leen di jël carrément ñu dem jàngi lislaam xam ko jël ñoo xam ne dañ leen di jël ñu dem jàngi seen àdduna ngir xam ko waaye nag ñoom ñëpp nañ bokk di daje ci jàngukaay yu mel nii maanaam ku xëy jàngi leneen ba àggal na am jàngukaayu jàkkaam boo xam ne médecin baag ingénieur baag keneen ak keneen foofa la ñuy daje nag di jàng seen diine di fa duyaat nag ba fees ak seen lislaam ba boo delloo fa nga doon liggéeyee muy bureau ba muy dara muy leneen ab jullit ngay doon bu nekk foofa waaye suñ xëyee xëy rek ne jullit yépp nañ dem jàngi lislaam te bu kenn jàng ci école français kooku musiba lay indi ci ab réew li muy tekki mooy kon jullit yi seen mbir day day day continuer rek taxaw ñu topp rek nekk al toppe topp ñeneen ñi ñoo leen di tëral ay loi ñoo leen di defal lii ñoo leen di defal lii la ñuy lekk sax ñoo leen koy jaay suñ ko seerale ñuy bëgg a dee luñ soxla ci ñoom lañ koy wute parce que ñoo dellu gannaaw loolu nag pour xeet yu jóge ci jàng lépp moo koy indi ba noppi nag jàpp ci sa diine jàngal loo mën a jàng waaye jàppal ci sa diine lépp lu am njariñ lépp lu am njariñ te nga mën koo jàng jàng ko kon ka nekk ca école ba di jàng njàngum français nga yëg ne ab jullit la donte la ko wër ak ndëngate la ña muy dégg ñuy wax wax joo xam ne ju wedd yàlla la na mel ne picc yu sab ci kanamam nañ tuuti fi kanamam donte bari nañ xam-xam ci leneen xam na li muy jariñoo ca la ñuy jàngale la ca am njariñ mu sekki ko ndànk jël ko la ca amul njariñ mu delloo leen ko sànni ko ci àll ba kon jullit bi noonu lay mel jullit bi day mel ne kuy raas si déem déem boo koy raas am nay doom waaye am na dégg yuy jam nga fexe bay coppati doom yi di jël te dégg yi bañ laa jam société yi ngay dund nag te lislaam yi kese nekku fa noonu la mel fooy waaxu di dugg fu nekk am na fa lu am njariñ am na fa luy lore fexeel ba lay jariñe nga jariñu ca lay lore nga bàyyi fa lor jooju loolu nag formation boo ko man ci biir jullit bi ak xamal ko diineem jàngal ko yee ko kon loolu la ñuy wax foofu wallahu a'lam mi mbokk day laaj lan moo tax ma tànn téere bi pour jàngale ko loolu waxoon nañ ko ci jotaay bi weesu benn nekku fi woon wala su fekkee déglu na la weesu woon jombul na dana ko dégg wala waxuma dara lu jëm ci loolu lu tax ñu tànn ko kenn fàttaliku ci dara waaw def kon kon am na ku ne waxoon naa ko kii dafa laaj mu ne kenn ci saxaaba yi wax na yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ko yaa xayral bariya loolu moom wax dëgg xadis la boo xam ne bu dee xadis dajewu mag moom yàlla moo xam danañ ko jël gën koo seet bu baax a baax gisuma fu ko ab saxaaba yi waxee leneen li ci des mu ne ndax kii xutba sañ naa weddi wala mu inkaar ci ni mu ko waxee daal ki nga xam ne dafa wax ne xayru xalqillah ala kulli xaal masala la moo xam ne comme ni ma leen ko waxee ay boroomi xam-xam juyoo nañ ci kon ñëpp mënuñoo daal di wax ne rek wax ji dafa doon loo xam ne bàkkaar la wala wax la joo xam ne ju daganut la wala yu mel noonu ba tax muy jaaral nit ki ci ab xutba muy tontu nit koo xam ne dafa wax rek ne xayra xalqillah melal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen ne moo allif bi nii xayra xalqihi la wax donte moom leeral na lim jublu ci xalq yi waaye xalq moom ci baatu ci baatu ci kàllaam ak arab moom mbindeef lay firi kon nekkul masala boo xam ne jar na baril werante wala itam garaawal ko wala yëkkati ko ba mu àgg fu mu àggul ndax dagan na ci jigéen mu ziyaare xabru baayam waxu kay dagan na jigéen ji ziyaare ay xabru waaye du ko baril yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laana allahu zawaaraati alqubuur yàlla rëbb na jigéen ñi nga xam ne dañu ziyaare ay xabru te baril ko ndax zawaaraat comme ni ngeen ko xamee mooy siixatul mubaalaxa la ci arab mooy ñi koy ziyaare lu baree baree baree bari ñooñu lañ ko teree waaye bu dul loolu jigéen dana ziyaare ab xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aïcha radiallahu taala anha laaj na ko su ma ziyaaree xabru yi lu may wax. mu daal di koy jàngal ñaan gi asalaamaaleykum daara qawmin muminin antum saabiquuna wa inna insha allah bikum laaxiquun kon loolu day wane ne lu dagan la te xadis boobu mi ngi ci saxiixu muslim yonente bi alayhi salaatu wasalaam fekk na jigéen joo xam ne itam dafa am doomam ju faat mu ñëw toog ci xabru ba di jooy xadis bi mi ngi saxiixul buxaari yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko isbiri muñal mu ne ko li ma dal dalaa dalut yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi ko fa dem nit romb ko fa ne ko ki jaaroon fii lu mu doon wax ak yow mu ne ko dane ma muñal ma ne ko xanaa li ma dal dalaa dalut moo tax ngay wax loolu ñu ne ko xanaa xamoo ne kooku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne déedéet xaw ma ko woon daal di daw dikk ba ci kër ga fekk ko fa ne ko muñ naa yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko as-sabru inda sadmati al ula muñ kët mooy fa yëf yee dale ci sa kaw rek nga daal di muñ waaye doo saalit ba pare door a wëlbati ko door a muñ طيب تفضل amul benn muskila ko am soxla bëgg a jàppi wala mu bëgg a am fu mu jëm mën nañ koo kii insha allah mën naa jëm kii day laaj bu fekkee ne palaasu jàngukaay bi ay góor ak i jigéen ñoo ca nekk ñi bokk di jàng alxuraan di tari ndax jigéen ji dana yëkkati baatam ca kaw di tajwid ci kanam góor ñi ala kulli xaal kooku ci masala yi nga xam ne man damaa gis ne yi aaja def ndànk ci la bokk ndax wa qul na qawlan maarufan lu bari ci sunuy ulama liñ ifta moo di tajwidu jigéen boo xam ne dafa ànd ak baaral ci wàllu alxuraan kooku góor waru koo waru koo déglu su fekkee day tari nag rek tari boo xam ne tari bu bu dem la maanaam tartiil boo xam ne bu gaaw la su boobaa incha allah dara du ca nekk waaye nag su dara desul lu dul di daaj ak a baaral ak a yëkkatee ka wàcce kooku na jigéen ja bàyyi ba wéet jànge noonu wala suy jàng ci kanam jigéen ne moom mu def noonu waaye bu dul loolu loolu jaadu ndax dagan na ci jigéen joo xam ne du jullit mu gis awray jigéen joo xam ne jullit la awra ñaari maanaa la am bu fekkee ne dafa jublu ci awra li ñu tuddee al awratul mughallasa nga xam ne mooy mooy awra ci boppam muy cër ba cëru awra kooku daganul jenn kenn di ko gis sax ci sa moroom su fekkee ne du ñaari way dencante wala ñaar ñoo xam ne ndey ak baay lañ wala yu mel noonu ci ci jigéen wala ndey ak ndey ak doom laa bëgg a wax ndey ak doomam ci jigéen su fekkee nag beneen maanaam awra bi la muy yaram wa ca biir lu mel ne karaw gi lu mel ne yu mel noonu gisuñu dalil boo xam ne dafay tere ne jigéeni yéefar du ko gisal jigéeni jullit lu dul lenn ci borom xam-xam yi ñoom wax nañ ne sib nañ ko ndax dañoo bañ yéefar bi gis ci moom ay melokaan yu rafet dem di ko melal seen moroomi yéefar yu góor yi ñuy xam ci ab jullit loo xam ne lu ñu warta xam la waaye loolu ci maanaam sibéer la yem waaye gisee la su ko dalil kii def ne bu imaam waxee ci xutba bi ne fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim ndax jullit ya foofa mën nañoo jéggalu yàlla su fekkee imaam toog na ci diggante ñaari xutba yi foofu jullit bi mën naa jéggalu mën naa ñaan ba kero imaam di jógaat loolu lu sax la ne lu mën a nekk la yow xaw ma lii def na dafa bëgg ak laay biir ci ci océan bi xaw ma loolu nu muy laay biir gi nu muy demee moom laay biir gu aju ci océan bi moom wax dëgg yàlla xaw ma ci lu muy war a jëm su fekkee dafa am laaj bu ci aju boo xam ne bu direct la boo xam ne danaan nangam ak nangam ak nangam luñ ci xam mën koo tontu waaye nag laay biir ci wàllu océan bi moom wax dëgg yàlla gisuñu ci gisuñu ci bunt buñ mën a laaya biir nit li borom bi tabaraka wa taala jubli ci alfaaxisha fi muy wax ne illa an yatiina bi faaxishatin mubayina faaxisha moom ñaawteef rek lay firi waaye li ëpp ci borom xam-xam yi njaaloo lañ ko firee li ëpp ci borom xam-xam yi faaxisha njaaloo lañ ko firee kon tontu nañ leen ci laaj yi incha allah waxtu wi li ci des bëreetut jombul am na ñu bëgg a waaj wala yooyu tey moom dafa mel ni mbokk yi dañoo bind seen laaj yi waaye kenn jërul parole wala am na ko bëgg a ñu jël kenn wala ñaar bopp yi ci des incha allah danañ ko tontu ci ci biir ñëw bi incha allah yi ñu ci tontu danañ ko boole ci dars bi ñëw incha allah bismillah.
alhamdulilah dama doon laaj ci ndax nit ki mën nañ ko wax mu defal la dara nga ni ko maa ngi lay sant léegi ko ñuy ñuy utiliser maa ngi lay gërëm.
alhamdulilah dafa am détail yoo xam ne ci palaasu jàngale jàngale moo ko laaj pour séparer diggante sant ak gërëm. waaye ñu xam ne làkk yi nga xam ne du làkki arab waaye dañ koy jëfandikoo ci ci leeral maanaam arab mi xóotaay bi àggewul foofu li ëpp ci nit ñi bu ñu ne maa ngi lay sant li ñu ci jublu mooy maa ngi lay gërëm fekk sant ak gërëm amuñu benn séparation bu dox ci diggante bi su boobaa wax gi du daga du du wàññi dara du wàññi dara parce que kooka jubluwul ne dafa am loo xam ne yàlla rek moo ko yeyoo mu jël ko di ko jox waaj muy cant ak ngërëm ñu wattandi ko su fekkee ne làng ba xas na tuxu jóge ci làkku arab ba dugg ci weneen làkk donte dan laa wax ne ci bind bi xamal ne la gën a jub te gën a aw yoon mooy alhamdu nga firee ko cant shukru nga firee ko ngërëm xamal ne loolu pour jegeel maanaam moom mu leer la waaye du firi mukk ne nit ki duutoo ko mën a wax ne ko sant naa la mukk ok boo ne ko sant naa la te fekk gërëm naa la nga ci jublu ba tey te làkk wa ngay làkk nangu na ko moo xam wolof la wala polaar wala séeréer wala weneen làkk waaye nangu na ñaar yooyu su boobaa dara du ca nekk te la chaque ne làkk yi ñuy làkk moom moom nangu na lu mel noonu moo tax buntu traduction ci wàllu wàllu texte yi nga xam ne texte lislaam la di ko jëlee ci arab wala ñu jëlee ko ci alxuraan di ko yóbbu ci sunu làkk yi doonut mbir moo xam ne mu yomb lool la ak jegeel rek lay doon ak jegeel ngir maanaam mi mën a jege sam xel bayow nga xàmmee lan mooy xamdu ci arab ak lan mooy sukkur ci arab waaye nag du yàq la nga doon wax yow insha allah joxal kii jox ko jëlal kii
ndax man nit ki mën na ndax nit ki mën na wax ci làkk bi mu dégg ñaan ci julli ci sujjóot wala ci taaya bu mu ji ci fekkee la muy ñaan teewlu mënu ko ci arab daal beneen bi mooy ndax nit ki bu xutba ba tudd tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam mën na julli ci moom ci
ndax nit ki bu nekkee ci julli mën naa ñaan ci weneen làkk wudul làkku arab wala wudul alxuraan alhamdulilah loolu boroom xam-xam yi juyoo nañ ci waaye ku mel ne cheikhul islam ibnu taymiya day wax ne mbir mi ay degare la maanaam tolloowuñ ki nga xam ne mën naa ñaan ñaan goo xam ne dafa rot ci sharia maanaam dafa nekk ci alxuraan wala mu nekk ci sunna kooku du dagan mu koy bàyyi di wàcc na yem ci yooyu ñaan ginnaaw mi ngi ci biir julli nga bàyyi xel nag ne alxuraan dañoo tere ku ko jàng boo rukkoo wala boo sujootee boo rukkoo wala boo sujoot foofu doo fa mën a ñaane alxuraan waaye mën nga faa ñaane lu ñëw ci xadiis wala boo fay ñaane lu mel ne alxuraan da ngay jëfandikoo yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu mel ne lim doon jëfandikoo muy allahuma atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azab annaar loolu soo ko xasee wax loolu doonatul alquran boo ne woon rabbana alquran la waaye boo ne allahuma doonatul alquran kon mën ngaa rukkoo wala nga sujuut di wax allahuma atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azab annaar muy ñaan goo xam ne gu mat sëkk la gu bàyyiwul dara kooku soo rukkoo ak soo sujootee mën nga koo wax te loolu defe naa jullit bi lu mu sàggan sàggan war koo mën boo mënul ñaan gu nekk ci alxuraan nga ñaan ñaan bu mu nekk ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo xam da ngaa rukkoo wala da ngaa sujjóot wala da ngaa taaye ba pare parce que foofu mooy place ñaanukaay yi yi gën a fés ci julli rukkoo ak sujjóot wala boo taayaa ba noppi rawatina nag sujjóot ak boo taayaa ba noppi parce que sujjóot yonente bi alayhi salaatu wasalaam daf ne jaam bi fi muy gën a jege boroomam mooy bu sujjóotee mu ne kon ñaan leen ko ndax yayoona seen ñaan googu yayoona yàlla nangu ko fekk yaa ngi sujjóot beneen bi ci des itam ci taaya dafa wax ne su taaya ba jeexal fal yasal ma bada lahu na ñaan lu ko soob foofu nag yonent cheikhul islam ibnu taymiya mu ne bu fekkee pare na loolu mënu ko su fekkoon ne mokkalul dara ci ñaan goo xam ne ci alquran lañ ko jëlee wala goo xam ne ci sunna lañ ko jëlee kon su boobaa dëgëre ba ca sës mooy mu ñaan ci kàllaam ak arab ndax kàllaama googu mooy ndab li nga xam ne alquran ak sunna ci lañ ko yekk kon moo gën a tedd weneen làkk wudul woowu ndax loolu kon ñu ne na ñaan ci kàllaam ak arab su fekkee mënu ko nag mu ñaan ca làkk woom dégg ndax borom bi tabaraka wa taala moo bind làkk yépp te lépp lu jaam bi wax xam na ko ñu ne loolu moo fay sus bu boobaa su ko defee bu boobaa du wàññi dara donte ci biir jullit farata la nekk kooku du ca yàq dara insha allah kon ñu yem foofu insha allah ba ci jotaay bi ñëw ndax fii ak waxtu julli bi defe naa ne ñaari minute képp moo ci des wasal waaw beneen bi mooy bu fekkee ne dañuy xutba ajjuma ba tudd yonent bi alayhi salaatu wasalaam li gën a wér ca maamoom ya nga xam ne déglu moo leen war maanaam jëmmi imaam ji ci boppam mën naa julli moom ci yonente bi alayhi salatu wasalaam moom mooy xutba waaye ñi koy déglu day war ci ñoom ñu déglu loolu mooy li gën a dëgër ci waxi borom xam-xam yi mooy du jaadu ci ñoom bu boobaa ñu julli ci yonente bi alayhi salatu wasalaam am na ci ñoo xam ne dañ naan day julli ci xelam waaye la gën a dëgër mooy toog déglu ndax béréb la boo xam ne digle lu baax ak tere lu bon sax dañ ko faa tere maanaam ki doon wax ci sa wet dëgganul nga ne ko noppil su fekkee nag yaa ngi situation boo xam ne sañatoo digle lu baax ak di tere lu bon kon kooku sañatoo wax lay firi kon sañatoo wax lay firi ginnaaw sañatoo wax nag kon wax yépp dañ la koo tere nga tëye sa làmmiñ ba imaam xutba ba jeexal te su jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu insha allah ginnaaw yow dañ laa noppiloo kooku du la du yàq dara ci yow ci sa situation yow وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين